ay loi yoo ne mais loi bi si yow Sénégal day respecté loi yow Sénégal soo waaw man la Sénégal soo respecté loi dina jël mbali sànni ko ci mbedd bi loi prévoit ça de. loi dina fekk garab. est-ce que loi ñu teg baax na sinon. non loi yi sax c'est-à-dire que j'ai dit problème suivi la. lii nga tey Diomaye bii laay waxanteel président soo amoon fit. pour régler problème location. waaw peut-être ñu ñëw ci solution yi ñu wax. c'est pas de solutions. ils veulent jouer. sur le registre des impôts tax waaw ñu ngi leen di dugal lu ñu xamul nee nañ dañuy wàññi taxes dañuy wàññi taxes yi locataire bailleurs yi wàññi du ñu mas a wàññi. du ñu wàññi. gis nga soo ne wàññi woon taxe suñu doon fay taxe six cent ah, ñoom wax nañ ko nee nañ loolu c'est une solution pour Cheikhul Khadim am na beneen expérience ba ma la ci mën a wax sax mooy su dee ay Italie xam nuy def hmm. da ngay luyee fa kii da ngay ki kii six six cent Maria six cent mille ndege ne six cent mille yi nga luyee Maria dafay mel ni Maria trois cent mille lay fay ou quatre cent mille deux cent mille état da koy dagg su école su année bi jeexee la koy jox Maria ça se passe dans certains pays ñu ngi gëstu de impôt deux millions nga war a fay par année ou trois millions dina ne rien lu teye ba ñu yokk location yi ñu lo ñu loyer locataires yi du ko xam ba xam wàññi nañ leen am mm-hmm. loolu c'est pas la solution solution yi wax nañ ko ah. les solutions durables mooy lan promouvoir le logement social benn mais loolu du c'est une solution à long terme ou à moyen terme. solution immédiate à court terme xamalum am sa fit wàññi loyer cinquante pour cent fa sa kanam nee na dañuy jëlee charité yi Dakar. Hmm. mais loolu il y aura des des il faudra beaucoup de beaucoup de beaucoup de beaucoup de de kii. de de frustration beaucoup de vigueur. et de rigueur. ok dañ leen di génne xam nga mën na ko. Hmm. mais soo nee. képp ku doon fay cent cinquante mille na fay soixante quinze mille franc Dakar su weer jotee waa ji su bañee yóbbu ko police mbaa gendarmerie mbaa offre réel am na am na ñoo xam bi ñu wàññee da ne la du ma Macky Sall ba may tabax sama kër fekke ko mm, du ma jël mais boobu xamuñu da koy defal offre réel huissier ngay dem mu ñëw ni Albert da ngaa wàññi na ma da lay fay soixante quinze mille franc ko jël oui ou non Albert ni ba may tabax sama kër fekke ko huissier ba dem jeex na. mais nit yi amuñu est-ce que amuñu droit def loolu aussi. par exemple mais xamuñu ko mais je veux dire le fait que nga tabax sa kër jënd sa ciment. jënd lépp et puis nga loué sa kër ba pare. état bi wax ni mm. kër yi ñuy loué Dakar 80 pour cent. xanaa kër gu ñu tabax kër yi ñuy loué Dakar. buñ ci tabax 1900 2000 xaalis ba génn. saa a été aborti man maa la wax loolu. kër gu ñu tabax 2000 2000 a léegi ñaataane la. 24 mm-hmm. ans non 2010 en fait ils ont trouvé. ils ont trouvé benn. super c'est une escroquerie pour pour pour li li li.